aywa ñu dem euh, léegi léegi ci ñaari yenn kaay groupe Futurs Médias muy euh, l'observateur ak euh, record à la une de l'observateur ñu jëm ci paiement de la dette au producteurs semenciers gis ngeen. Euh, le ministre de l'agriculture di Mabouba Diagne ak suñu naataango yu l'observateur dellu siwaat ci li ñu waxoon démb ñu ne l'Obs et la seule vérité le faux démenti du ministre et les nouvelles révélations sur la dette noonu la ko yéenekaay bi waxee euh, démb dañoo indi woon le rendez-vous raté euh, de Sonko ci la le ministre de l'agriculture Mabouba Diagne dugg ci Info Matin indi ay leeral suñu naataango yi dellu siwaat nañ nag dellu siwaat nañ itam ci l'historique de la dette le point sur l'état des paiements et la méprise de docteur ba Diagne noonu leen ko tuddee ñu ne producteurs yi ba tey euh, ña ngay wax leneen itam loo xam ne mënees na koo xam wala boog mënees na koo jàngat ci xët bu njëkk bu l'observateur euh, muy créance au secteur euh, privé national la dette de plus de trois 300 milliards de francs CFA qui étouffe BTP bor la bu toll ci ñetti téeméeri milliards ñoo daal dem na bay fat BRT BTP pardon entreprise yi nag ñoom daal dañoo mujje sax ñenn ci seeni liggéeykat ñu taqalikoo ak ñoom ba noppi itam banque yi euh, taxaw ci seeni xef l'observateur moo ko xamle l'observateur itam ñëw na ci sécurité routière ak accident yi ma ngay wéy démb ci boori foire ñetti bakkan dem nañu barsàq benn euh, bus tata moo waral euh, bile jëye ndax moo dal ci kaw beneen oto euh, rey ñaar ak keneen ku ca topp muy ñetteelu doomu aadama bi gëstu la waa l'observateur à la page 6 def ca goxu Mermoz xam nga ne foofu la président Macky Sall dëkk ñu ne la vie après le départ de Macky Sall ana yan euh, euh, coppite moo fa am gannaaw ba ki fi nekkoon jiitu réew di président Macky Sall jébbalee lenge yi euh, président Bassirou Diomaye Faye ñu jeexalee. ak beneen euh, xibaar ci l'Observateur confidence de femmes sur la première nuit de noces euh, de leur époux avec la pouse boobu nag wax na euh, ci soxna yi dund polygamie ak seeni borom kër bu ñu takkee soxna ana guddi gu njëkk gi naka lañ koy dundee bu leen bëggee xam wala ngeen bëgg am tontu li da ngay dem seeti l'Observateur mu indi leen ci ay leeral aywa Malick. ñenn dañuy crise. dañuy leen crise. ñenn ñenn ñi bo bo bo boo soloo ba ba def sa parfum ba nar a dem ci ñaareel ci ki nga takk. Mm-hmm. ñu tëj bunt bi ni la doo fi génn. ndeysaan ñenn ñi di la soode. Mm. ñenn ñi di la sotti dëwlin ju tàng. très bien ñii jël kuur. Mm-hmm. bëgg la koo dóor. ñii dem ca marabu ba. Mm-hmm. ni la na dof mbaa ñu tàggali ko mbaa bu mu demee bu mu fonctionné. très bien aywa <laughs> ñu dem ci record. <laughs> man dama joxe dama joxe la grande ligne dama joxe la grande ligne ne dama leen jënd journal bi maa leen jël temps am. Fati nanguwul a dugg ci détails yi <laughs> bon amul problème. non yenn détails yi su ma ko duggee téléspectateur duñ ko liirati c'est comme les faits divers rek dama ñëw rek mooy joxe la grande ligne. maintenant ayca Omar Sarr ca xët wu njëkk wala gros défi Citizen ñoom ñooy daje ñoom euh, Tottenham ak City à 19 ñu xool naka lay mujjee foot féminin D1 19e journée 3e sacre les aigles de la Médina jël nañu ko ñoom footballu jigéen ñi Ligue 1 nag moom euh, Mbour euh, fële jaraaf da leen faa fekk dóor leen deux 0 jaraaf nag mi ngi rek topp Tëngéej FC te koo bàyyi Tëngéej rawee na leen juróomi poñ waaye nag ñoom nee ñu dañoo bëgg daal au final ñoom it ñu daal di jël raaya gi Désiré Segbe international béninois la di xaritu Sadio fu mu dem nag ñoom ñaar ñooy ànd nee na fële ca Bayern dañ koo respecté wul woon moo tax Sadio takki kaakaam dem fu nga xam ne fële ëppee jàmm Coupe du Sénégal huitième de finale tirage bi def nañ ko ñaari match yu tàng am na ci muy Casa Sport ak AS Pikine Jaraaf ak euh, Dakar Sacré-Cœur loolu mooy affiche merci beaucoup El Hadj mu nekkoon record ak l'observateur 9 jot na ba tegal ñaar fukki simili ak benn ñu dem ci euh, la météo en express c'est su waxtu wi jotee dañu dem fekki Oumy Samb mu wax ñu.